plateau bi toog doyeeg maître Baboucar yegsi. incha allah donc euh, euh, bës yi ñuy waxtaanee tey euh, bi ñuy jiital bu mat bës la ndax mujjee naa dal ci nekk loo xam ne rek ku nekk wax na ci mu di Pape Mbaye di ab Sénégalais boo xam ne nekkul Sénégal. Euh, jóge na fi lu yàgg-yàgg li ko waral mu di ah, dañ koy jiiñ borom ñaari tur yi moom pambaay nag coow loolu yàgg na fi na am parce que fois da koy gis muy def vidéo di wax nekk euh, sénégalais yi dañ koy tuumaat ci loo xam ne leeru leen ndax kenn mësu ko bett ak góor euh, mais ci li ñu koy jugé moom moo di colin gi waxin gi ak yenn manière yi muy def gis nañ ko nag mu dem Fès Maroc def fa benn vidéo moom nag moo ko defal boppam di wax rek ne yàlla rek moom mooy Karim te fii kenn du fi bokkaale yàlla kenn du fi def lu neexul yàlla ci noonu la ñu daal di xamle euh, ne Pape Mbaye dafa daal di tuub mais gis nañ ko nga euh, ci vidéo boobu mu daal di ci waxaale ne euh, dina dem ziyaare ji fi nga xam ne moom moo di Makkatal Mukarram pour wane rek ne moom Pape Mbaye jamono ji changé na mu ngi ci beneen vie amee. waaw bu nekkee ne dafa tuub alhamdulilah parce que yàlla si alxuraan mu ni wax ne bul def mukk ay ñaawteef ba jàpp na yàlla suñu borom du la jéggal mhm. yàlla suñu borom kat ku bëri yërmande la donc bu nekkee ne moom Pape Ndiaye nekkoon na si ni mu nekkoon ba yàlla dogal tey jii euh, mu tegwaat si yoon siraatal mustaqim da koy ñaanal yàlla suñu borom mu gën ko see saxal yi tamit yàlla suñu borom daf tamit ñi nekkoon si yoon ba moom la nekkoon yàlla suñu borom gindi leen moom tamit yàlla sàmm ko bu baax a baax ba du tàbbiwaat sax la mu nekkoon donc loolu defe naa lu am solo la mhm. te tamit tuub lu am solo la si euh, jullit bu nekk ndaxte yàlla suñu borom moom moo santaane ku nekk muy tuub kon tuub lu baax la donc ñu ngi ko si encouragé bu baax a baax mbégte la daal ameen dooy mbégte la Babacar waaw non ah, ah, gis nit bu jàpp ne mu ngi woon ci yoon boo xam ne gënul nga dem ba ëlbatiku pour jaar ci yoon bu baax loolu moom sant yàlla lees ko mën a def boole ci tamit nag yàlla na ko borom bi dimbale ba mu sax ci yàlla ñu yàlla yokk sutura daal amiin borom njaboot gi ah alhamdulilah parce que jullit euh, même bu dee même sa mbokk jullit bu nekkee si yoon boo xam ne safaan la dafa war sax nga koy ñaanal yàlla soppi ka parfois sa noonu sax da lay def dara nga toog julli ñaan yàlla doo ñaan yàlla yàlla fay ko moom muy def mais da ngay ñaan yàlla yàlla dippi xelam jub defar def ko teg ci yoon bu baax bi voilà léegi pambaay bu jëlee yoon bu baax rek ñu sant yàlla yàlla na ko yàlla musal ci seytaane nag ba ba mu bañ dellu ci li mu nekkoon donc foofu li may préciser am préciser Ameth moom mooy fàttali leen rek. bu la neexee nga préciser ko tamit. préciser noonu waa jiw waaw <coughs> damaa juum préciser de toute façon màkkala de moom booy préciser nga xool. <laughs> non damay wax ni avant avant Pambaay. te yàlla ni muy soppee ay ñaanam. si mm-hmm. booy préciser daal xoolal kaa bi. Euh, avant avant muy euh, def vidéo bi dem Face euh, am na coow lu fi jotoon am diggante ak Adamo ak ñenn ñi ci lañ ko gise woon muy wax ne dina daal di changer donc mën nañu jàpp ne amaana li mu doon wax ñëw na pour changer changer li nga xam ne moom moo di dundam beneen buzz bi ñuy waxtaanee am moom moo di coow li nga xam ne xew na fi fan yi ci. weekend bi ñu génn mais euh, gis nañu que mu daal di affolé li nga xam ne moom moo di euh, toile bi ca ci kii benn village bu séeréer bu nekk ci commune bu Diass euh, ginnaaw bu ñu waxee rek ne garde rapproché